dafa am euh, benn structure bu ma créer bu tudd Africa Dream School euh, structure boobu day def ay recherche ci wàllu éducation di proposer ay solutions pour régler problème yu bëri ci wàllu éducation fii ci Sénégal mais également ci Afrique tey dama ñëwoon fii ci ministère éducation nationale pour euh, participer ci benn cérémonie remise ay fly box maanaam ay jumtukaay yoo xam ne day dañ koy jox école yi pour ñu renforcer seen capacité ci wàllu technologie dugal technologie dugal internet bi dugal machine yi ci wàllu éducation dama ciy profité waale pour présenter Edmil Edmil benn logiciel la bu benn structure fran euh, startup française créée bu tudd My Serious Game Edmil dafa nekk euh, benn logiciel boo xam ne mun nañ ko utiliser pour jàng euh, élève bi mun na ko utiliser pour jàng enseignant bi surtout mun na ko utiliser pour jàngale mais école bi surtout mun na ko utiliser pour ay jàngale katam dugal seeni enseignement ci biir mun a def seeni formation euh, de façon très facile euh, ñëpp xam nañ ne feebar bi passé wone na ne système éducatif sénégalais ak africain dafa am lu bari lu mu manqué mooy wàllu xarala yi loolu moo tax fi mu nekk nii ñëpp a ngi xalaat ay solution pour jéem a trouver ay solution pour loolu ñaanuñu yàlla mu amaat mais bu amaatee aussi ñu mun a am ay solution yoo xam ne daf ñuy permettre dootuñu dootu en tout cas bu même bu ñu defee ay bu ñu dematul école tamit ñu mun a continuer di jàng Edmil loolu lay jëriñ euh, dama koy proposer école yi di ko proposer euh, université yi di ko proposer structure étatique yi Euh, même hôpitaux yi ministère de la santé ministère de l'éducation tous les ministères agences yi euh, képp koo xamante ne soxla nga def ay formation pour say agent muy ay élèves muy ay employés quel que soit euh, formation bi mun nga ko dugal ci biir Edmil dafa am ay texte dafa am ay vidéo dafa am ay image bu la neexee nga def nga enregistrer sa cours enregistrer sa formation dugal ko ci biir jox ko say employé jox ko say élèves ñu jàng ci de façon autonome surtout loolu moo ci gën a am solo autonomie bi euh, application bi boo ko xesee installé sa téléphone wala sa wala sa ordinateur euh, application bi moo lay jàngal laajul kenn kenn kenn intervenir loolu moo am solo ci ci application bi mais euh, am nañu benn équipe boo xam ne équipe bu xarañ boo xam ne dafa maîtriser logiciel bi saa yoo soxlaa ay ay ay ay saa yoo amee ay problème boo leen contacter très rapidement dinañ répondre sa euh, dinañ résoudre sa problème et ainsi de suite euh, voilà donc euh, Edmil mu ngi fi à côté de ce que propose le ministère de l'éducation ñu ngi proposer ay solution yoo xam ne bu ñu boolee bu fekkee boolee nañ yooyu yëpp day faciliter en tout cas le travail de tous les formateurs du Sénégal qu'ils soient euh, de l'administration qu'il soit de de de du privé en tout cas euh, ñi ñëpp ñi nga xamante ne soxla nañu formation bu ñu ñëwee en tout cas am nañu ay solution pour et dimbale leen ñu ñu dugal yooyu ci ci seen dispositif.